ngeen da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production moo leen ne dugal nañ ko ngir a xam nekkoon ne borom Darou Mouhty mu naan fi jaamu yàlla fii lay wàcce ab liggéey comme ni ngeen gisee foofu noonu suuf nekk fi ama wàccuwaayu bis bi moom mm, bi Sëñ Touba liggéeyee liggéeyam bu rëy boobu yi nga xamante ram jaam yi rek moo ko moo ko sawoon ba ñu bisi dañoo wax ne ci bis bi ci la jëkke gisewaat ak moom muy bis boo xamante ne bisub mbégte la bis boo xamante ne bisub sant yàlla bis boo xamante ne bis bisub siggi la ñëpp di ci maase di ci di ko sant di ci sant yàlla di ci sant le Sëñ Tuubaa ci jëlluseem ngoogee ak mbég moom la mu amoon euh, diggante sëñ Touba ak borom daaru moom lépp rek la maanaam benn lan rek rakkama ju topp ci moom féete woon ko fépp liñ ci mën a dégg it mooy mooy rek nit dafa war a am kilifa ndax borom daaru léppam da ko jébbal sëñ Touba topp ci moom lépp lu ko sëñ Touba mos a digal def na ko nam ko bëggee bi sëriñ bi dem ci géej gi tamit fii la ko bàyyi woon ay ndénkaan yu rëy yu mu ko joxoon ndénkaan yooyu sàmm na ko ba yàlla dogal mu de mu dellu siwaat ba jébal ko ko euh, warees naa mën a roy ci maam Thierno nag ci ni ab murit war na farlu ci gëm ab sëriñam war naa farlu ci nangoo liggéey war naa farlu ci nangoo jaamu yàlla war naa bu bari tooñ kenn ndax noonu la borom Tuubaa noonu la sëriñ Tuubaa noonu la borom Daaru Musti ne ma ko dégg ci mag yi non ci tànk yooyu la taxawoon daana liggéey liggéey bu wér ceng di ko jébal di ko jébale addiya di jaamu yàlla waxtu wu nekk ndax waxtu wu nekk moo ko daan jiite ci jàkka ji te jamono yooyu sax ndox yombul waaye daañu wax ni daana aye ku ci jàkka ji te yore woon am jàpp loolu lépp day wane ni am murid dafa war farlu ci jaamu yàlla war naa farlu ci liggéey tamit ndax lépp loo lépp loo bëgg ci àddina da ngay liggéey lépp loo bëgg àllaaxira da ngay jaamu yàlla war nañoo maanu bu baax tamit ndax borom ndax borom borom bi muy dem ci géej gi yi mu dénkoon borom daaru lu sori la yu bare bare la wante wante lu ci ne suñ borom dimbali na ko ba nam ko nam ko ko joxe noonu la ca noonu la ko sëñ bi waat waaye mhm. daa mu mel ni euh, dañ leen a xaw a fekk ci ay xat-xat te boo leen toppee taarix bi mën naa gudd. Ah, euh, daanaka li ëpp solo wax ngeen ko waaye ñu ngi leen fekk itam ci bërëb bu tedd muy daaray kamil ñu bëgg na xam ndax daaray kamil gi bisub tey bi rek moo waral ngeen fi daje jàng alxuraan wala bés bu setet yéen a ngi fiy jëfe ndigal waaw ah, waxtu wu nekk ñu ngi fiy jàng benn kaamil suba benn kaamil ngoon mhm. loolu it wax na ne euh, maam Thierno bi sëñ bi li fi sëñ bi bàyyi ko dem ci géej gi saxaloon na di ko jàngal ab kaamil am na ñu ne àjjuma ju nekk am ñu ne bis bu nekk waaye daal lu ci mën a xew ba sëñ ba maam Thierno nekkee daa daaru mën naan fii ba ni sañ see daaru ngi koy jàng am na jamono yoo xamante ne moo koy jàngal boppam ku ci yam mu jox la ci nga jàng ci di ko def par benn ba ci jamono sëñ mu daaw bàll mu digaloon mag ñi fi nekkoon ñu koy jàng suba ak ngoon ah yàlla dogal nag muy law di law di law ba boobaak léegi mu mës a mës a génn suba ak ngoon suba ak ngoon ba toll fii mu nekk te loolu lépp eh, màggal ndigalul borom daaru loole la te borom daaru it sëñ Tuubaa taxoon mu di ko defal ba doole doole woon na ci tamit takkusaan bu nekk ñu def salaatu ala nabi maanaam salaatan salaatan gu ñuy wax salaatan tuna tuna jina ci jàkka ju ji ci jumaa ji junni yoon ay borom daaru da ko saxaloon gannaaw ko ko jàngal ko ab kaamil kaamil mooy dox bu agsi suñuy loxo ñu di ko saytu. waaw jërëjëf Baye daal xam naa laaj bi ni mujjee mooy bisu màggalu Daaru Muxti doon fukki fan ak juróom ci weeru Saxbaan di bis bu tànneeku. Hmm. bis bi lan nga ne ci mën a baaxee. waaw bis bi de moom bari na lool ay ngëneel yoo xamante ne daanaka moom bokk na ci woor ak yu mel noonu ngëneel daal moom. ku delluwaat ci téere kii da nga da nga ci xam lu bare bare waaw wax dëgg yàlla moom bis la boo xamante ne bis bis bu ris la bu bu am la ci ci ci wàllu jaamu yàlla bu am solo la tamit ci taarix bu murit bu am solo la tamit ci lu bare bare ñu ci jàng jërë da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen ngir mën a xam li nga xam ne